yaa alxames ji dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril atum 2021 di fukki fan ak juróom benn ci weeru koor atum 1442 ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa sallam Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général de Mourides am gan gu mag goo xam ne ma nga bàyyeekoo ci réew Mauritanie ci dëkk bu ñu naan Boutélimite di Cheikh Sidi Mouhamed Youssouf Ould Cheikh Sidi baaba di sëtu Cheikh Sidi Baba mi nga xam ne moo nekkoon ak Serigne Touba foofu ci réew Mauritanie mu amal nganuk ñaari fan fii ci tubaa ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides ngir dundal kóllëre gu mag gi nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikh Sidi Baba ak Cheikh Ahmadou Bamba. kóllëre googu sax mu ngi bàyyi ko woon ci maam Mor Anta ak waajuru Cheikh Sidi Baba ba ci maamam loolee nag la Cheikh Sidi Mohamed Youssouf ñëw fii ci tubaa di feddali ak yeesalaat kóllëre googu ndax Cheikh Sidi baaba nekk na koo xam ne. ku bëggoon Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la ndax way na ko ay xasida yu bëree bëri noonee it la Serigne Touba meloon ci moom ndax Serigne Touba moom it bind na ay xasida yu bëri di ko ci tagg. mu nekk diggante bu ratax lool diggante boo xam ne dañ ko yàgga dundal ndax bi fi Cheikh Sidiye Baba bàyyeekoo wujj suñu borom Cheikh Sidi Maxtaar mi nga xam ne moo di rakkam ak ay doomam ñoom ñëpp dañoo feddaliwaat kóllëre googu nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikh Sidiye Baba ak Serigne Touba. ñu daan ñëw ci njaareem daan fa fekk si sëriñ bu mag bi ba ci dëkk bu sell bi di tubaa daan dox kóllëre googu seen diggante ak doomi sëriñ Touba yi ba tey jii ci sëtëm yi loolee la Cheikh Sidi Mouhamed Youssouf uldu Cheikh Sidi baaba ñëwaat feddaliwaat ci sëriñ Mountakha Mbacké Bachir ngan gi nag nekk ngan goo xam ne sëriñ bi fonk na ko lool mu teg ko fu kawe ndax gan gi bi mu ñëwee fii ci Touba ñu dalal ko ci résidence Khadim Rasoul sëriñ bi moo déplacé wul boppam dem ba fi nga xam ne fa lañ ko dalal ànd ak ñenn ci njabootug sëriñ Touba gi. kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen dégtal leen ngan gi nga xam ne Cheikh Sidi Mouhamed Youssouf moom la amal fii ci Touba Mbacké ci xalif général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké Bachir di nganuk ñaari fan doonoon fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor atu 1442 ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa ak fukki fan ak juróom-ñaar. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ganuk sëñ bi gu tedd gi di doomi Cheikh Sidiya di seenu gan sëñ bi neen di seenu gan yéen waa Touba nee na moo fi ñëw tey moo ne mooy jóg ak tànkam ñëwal boppam nee na xam na ne këram la ñëw tey fii mooy première këram mooy ñaareelu këram nee na fu mu am ci àdduna nee na li leen booleeg waa Touba boole woon bàyyam ak waa Touba muy Cheikh Sidi ak sëñ Touba nee na yàlla rek la nee nag moom yoonu baayam rek lay jaar moo tax mu ñëw siyaar si wàll yi wii di Cheikh Mouhamadoul Mountakha nee na yittey àdduna taxu koo jóg waaye ñëw ngir dundal si la rek ko tax a jóg nee na dafa ñëw it ngir yeesalaat kóllëre gi Cheikh Sidi ak sëñ Touba yàlla xam na ne rafet na loolu yéene ko indi nee na mi ngi bu baax a baax nag nee na bég na lool it ci lii nee na dara gënt kawe di nee na nee na lii rek mën a am ndax bu ngeen niroo sëñ Touba nee na wàcc ngeen sëñ Touba nii la meloon nee na jërëjëf nee na yàlla ngeen am am jàmm bu faw incha allah na moom moo bëggoon a ñëw moo bëggoon a fekk sëñ bi waaye li muy a ñëw rek ca déggoon ñu ne mi ngi ci ay urinati al arwaaxu bi mahbubatiha nee na ay ruu bu fekkee lëkkaloo nañu rek dañuy bëggante ci nee na suñu ruu ànd na benn la daqale ma jamiam ustad cheikh al xadim ilaykum moom mooy cheikh mouhamad wulu yousuf doomi cheikh sidiya cheikh sidiya baaba mi nga xam ne moom la sëñ bi fekk woon murtani mooy maam moo jur baayam yuusuf baayam daana def nii daana gane si sëñ fàllu at mu jot euh, daana fi yàgg lool ñëw na seet si na sëñ basiru defe naa fekk na sax ci leen ci ànd naag moom ci dem ci beneen dëkk moom it nag nee na loolu lay dundal si moo tax ren ñoom mu ñëw fa ci turu seen famille ñoom ñëpp nee nañ ñoom dañ ne ko bu ñëwutoon ba si Touba ci seen tur ñoom ñoom seen xel du dal ndax loolu daal ne loolu ko tax a gën a jóg ak sëñ bi ba mu toogee ba léegi gisagu ko mu ñëw nag ci seen tur ñoom ñëpp la fa teewal waa kër Cheikh mhm. mhm. bi yëpp. <laughs> wallaahi wallaahi loolu mbirum sëñ Tuubaa rek la. xaala Cheikh al Khalifa anna hada xusni xadrika illaa min maxtaarahu cheikh alxadim anta ataytana wasalta al an alhamdulilah mundu saa saa faqat saa zamaniya wa saadafa xuduuru haadihi alkawkaba min xafadati cheikh alxadim min alulama al ajilla na hada illa illa tawfiqun min allahi subhanahu wa taala illa tawfiqun min allahi subhanahu wa taala incha allah tawfiqun min allahi subhanahu wa taala مستقبل مستقبل قال أنه الحمد لله ويستقبلك هذا إلى من من الاستقبال يستقبلك هو وأبناء الشيخ الخديم قال أن إن شاء الله وما بعده أيضا يكون هكذا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى ما شاء الله nee na lii rek lañ foog lañ yaakaar Tuuba lii rek lañ fi yaakaar nee na العلاقة الحمد لله ما يكفيها شد أخبار سنة ولا سنتين nee na li ngeen li leen li leen boole kenn mënu ko waxtaane benn at wala ñaar at wala ñetti at lii li boole kër Cheikh Sidi ak sëñ Touba nee na nee na yàlla rek yàlla rek lay du layen nee na bu du toon yàlla du demee nii nee na bu leen yàlla boole wutoon nee seen diggante du demee nii xam na yàlla rek ngeen xool ci moom incha lii nag honneur la nee daraja mënta gën a kawe lii daraja mënta gën a kawe lii daraja mënta gën a kawe la xaal an kaana yastaqbilukum faqat incha allah na nee na tey bokk na ci bis yi gën a tedd ci moom ci dundam ba mu dalee dund ba léegi nee na li mu am tey mosu ko am nee na nee yaay seen kilifa léegi ginnaaw bi fi doomi Cheikh Sidiye yi nekkatut yow la ñu xoole Cheikh Sidiye nee na yaa gën a yëkkati ñoom ku ñu mën a amit nee yaay seen xalifa nee na yaay seen kilifa alhamdulilah yaa